Nah, ada mana? Mana? bi nga xam ne ñoo bàyyi seen i tey ñëw xaar ma fi donc maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di jaajëfal te di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. super on y va droit au but wax naa ko tout à l'heure ci présentation bi récemment nga génn benn euh, single bu bees nga clippé ko euh, donc wax ñu ci concept clip bi clip bi ci boppam avant son bi di ñëw parce que gis nañ ni Pape Digué moom moo ko réalisé en termes de réalisation tout est super euh, donc collaboration bi comment ça s'est passé. waaw nice kooku suma frère la Pat maa ngi koy féliciter encore une fois mais aussi di féliciter suma producteur parce que clip bi moom gis naa ni kilib euh, la boo xam ne moom da ko fonkal boppam parce que dafa yàgg a gëm morceau bi muy Makhtar Diop Subatel borom Zénith de Paris Chéri Kia donc maa ngi koy nuyu di nuyu tamit suma équipe suma label Subatel musique bi nga xam ne jamono ji ñu ngi suma ginnaaw ñu ngi suma kanam ñu ngi suma ndeyjoor ñu ngi suma càmmoñ di di di joxe seen effort ah pour pour avancement wu Sidy Diop donc ñoom it ngi leen di bëgg bu baax a baax clip la boo xam ne sonn naa ci trop waaw clip def na trois mois wala quatre mois laa laa nekk di ko tourné donc clip la boo xam ne sonn naa ci boo seetloo yenn tëm yi tax da ngay xam ne lii seddaay la woon donc moo tax bi mu génnee def na carton boo xoolee instant yi mi ngi jël bokk na biir yi donc di wax sénégalais nañ daw tapé ko seetaan ko et puis ñu abonné wu xam ne des na yeneen surprise lii ce n'est que le début du commencement. le titre dafa frappé tous les ñu bari ne nañ égo trip la ci li jóg mooy bàkk boppam mooy kañ boppam ñu bari sax ne nañ ci tiktok bi euh, ku ko challenge dafa mel da ngay gaaruwaale nit. Euh, donc wëy bi da nga ko wëy pour am ñoo ko adressé wala yow da nga ko wëy pour wëy ko non même pas même pas xam nga yenn saa di nga woy fekk ñu julli ci ñëpp la waxal. est-ce que wóyoo ba woykat yi yaakaar ni ñoom ngay wax. non non non pas woykat yi dama wax d'une manière générale xam nga gëm nit gëm bi mu war a gëm boppam nit ki parce que àdduna yàllaa ko moom ah. boo nekkee boo nekkee ci yoon nekk ndaw man dafa am benn jeune Sénégal chaque jour dafa am benn appel bu ma leen wan mooy nekk jeune terewulaa gëm sa bopp xam ni yàlla mooy maye te benn yàlla rek moo am. moo lay may moo may may mooy may keneen ku la a ñaari yàlla am na waxut dëgg donc yàlla boobu laay santaat di ko wax ni carrément xam yàlla mooy buur donc ñoom mënuñu daan sama nguur genre écoutime la la c'est tout à fait normal. am na ñu gem bi ah, moo du ma tudd ay turu artiste non bu njëkk da daan dégg ñu ne Sidi Diop ak diw léegi yaa ngi ci deuxième bi ak troisième bi gars yi ne Sidi dafa ñëw pour napp gars yi yamale leen. remettre du loolu du quoi xam nga ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoo far et puis euh, c'est le Sénégal du ñun ak Gambie du ñun ak Mali du ñun ak Tanzanie wala ñun ak ñeneen c'est Sénégal donc ñun dara dara daray animosité daray garwaale mënul am suñu biir parce que on est des frères on est bu lépp passé ñoo bokk quoi donc morceau bi adressé ma ko kenn dama ko génne juste pour wax sama soppe yi que ni du ci mbalax rek laa ma ni aussi lii beneen public la bu may viser au niveau international. d'accord l'événement phare moom mooy le Zénith mu doon euh, bés boo xam ne c'est international parce que di la ñu gis ci scène bu mag donc am na am na lu bëri lu mu lay apporter euh, sur le point communication ñu bëri ne suba teel ak Sidy Diop artiste bi lu tax ñu yéex a def communication à temps ci Zénith lu wax lu tax loolu. waaw xam nga Sidy nag dafa am kilifa tey kilifa bi ma àndal ci Zénith bi bu ma juumul ku def Zénithu Baaba Maal def Zénithu Pape Diouf def Zénith Wally donc kooku miin na miin na foofu donc ni mu def ba communiquer ak ñooñu ba réussir ko macha allah xam naa ne dina ko def lu raw ci sama bopp pour réussir ko donc boobu ba tey dañu nekk nag di liggéey sama album donc war a génne ay single boo seetloo génne naa fi Alpha Sambala ma barki dem ci mbër yi génne naa fi Tacca bu ñoom Mandiaye Savon tey ma indilaate leen leneen ça montre que ni Sidi bi tamit toogul rek toog di xoolal dañu nekkoon ci ruq di liggéey sama album tamit mi ngi war a génn récemment ci fin bi buñ ci eggee nag ci beneen xeetu communication boo xam ne di nga xam ne ñii nekk nelawuñu woon parce que fu mu toll rek moo ñu ñor. est am na ñu bëri naan sénégalais yi nekk ci diaspora bi dafay tombeek préparation wu bëri dañuy ñëw Sénégal tabaski autant pour moi yi nekk man du sama xew man sénégalais yi nekk ci bëgg ñi nekk ci Europe bi dañu ma bëgg te te te lii du sama du sama événement man kese événement képp kuy waykatu Sénégal la événement képp ku yor drapeau vert jaune rouge événement bi sa événement la donc tabaski la après deux semaines la dina fekk ñi ñëw ba delluwaat foofu di gis sax ñoo xam ne du ñu tabaski ci ren ndax événement boobu la ñuy tabaski en terme de spectacle artiste bu mel ni Youssou Ndour jaar na fa def fay spectacle bu inédit sa frère Waly jaar fa def fay spectacle bu inédit di Diop lan lay préparer en terme de spectacle parce que foofu du baara mun di du donc boobu il faut que ñu répété il ñu spectacle son lumière chaîne comme ni nga ko waxee artistes yi fa aw yëpp dañ fa def tabac donc man tamit bu ma ñëwee ànd ak bu mel ni Makhtar Diop sama tey il faut que ma def tabac donc nag te damay dellu boo gis daa fekk première dem bee neexoon bu ma fa bëggee dellu foog di neex te nag mbirum neexaay beeg ambiance beeg dëbb ko ba mu noyyi noo teg ko sama loxo le 29 juin diaspora bi dinañ gis lu yéeme. lu bëri Pape Diouf ak Viviane su ma juumul euh, y' a beaucoup d' artistes. est ce que yaa ko bëgg a jëlee coow. amul parce que y' a beaucoup de polémique am na ñu naan pourquoi les autres artistes bokkuñ ci. non bien sûr ñëpp a ngi ci. ñëpp a ngi ci ñëpp a ngi ci wala erreur la ngeen ngeen ci. non non non non non non non non xam nga Youssou sama papa la. Youssou sama papa la loolu kenn yorente wu ko Baaba Maal aussi sama maam la man ak moom ñoo bokk Podor Sidiki Diabaté. aussi dafa def Zénith dafa def Bercy waaw Sénégal ak ni mu toll euh, si si tu te rappelles mu ñëw invité ma donc euh, Pape Diouf ku ne xam na ni man ak moom tam dañu yàgg depuis kër maire Dieynaba Fall damay nekk foofu sama grand frère Iba Sey ko ndax ma tax ñooñu ñu ma def leen pare ak sama yaay xam ne bërki dem daf ma yóbbu moom yu mag yu mag euh, ak Papa Thione ci kaw seen ba mm-hmm. ñu bëri xam nañ ci ñu bëri jooy nañ ci. waaw euh, tey jii est-ce que mën nañ xaar. di nga gisaat beneen di Diop ak waa Seck benn ma loolu laa bëgg. ah mais bi Waly moom a ko gën a bëgg. le 29 juin Waly moom a ko gën a bëgg parce que Sidi Diop di yëkkati drapeau bi di dem Zénith di si Waly la n'est-ce pas di si Pape Diouf la Pape Diouf mi ngi koy préparé. Viviane ne ma Sidi kenn du ma fa jiitu donc bis bi bisu artiste yëpp la ñoom El Hadj Keita ñoom Tarba ah ñoom Bastoum ah boo xoolee ki démb artistes yëpp gis nga ku ci génn vidéo yi ngay def pour di ma ñaanal pour di ma soutenir ça montre que ni bis bi du sama bis man boo attoon benn ñaari morceau li ci des yëpp daal seen la ñoom Ngaaka Blinde ak lu birig Diouf Samba Peuzzi ngi waajal donc bisu sénégalais yëpp bisu artistes yëpp la. nga <laughs> dafa gudd waaw. te mun nañu ne 7000 places la te mun nañu bokk nga ci artistes yi nga xam ne c'est rare ñu fay dem nga doon doomi Sénégal nekkatul fii di Sénégal la te lii daf lay ubbil benn porte mooy yaa ngi ciy bàyyi xel ci loolu yëpp aussi parce que sa carrière fii la ko nit ñi mën a bàyyee xel mooy Zénith. macha allah xam nga jàmm boo gis booy dem fenn yàlla rek ngay ñaan. Mm. parce que fekkee Zénith sax leeruñu fekkee Zénith sax leeruñu jàmm bi day sabablu rek yàlla mooy yeggale dañuy ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ñu egg fa ak jàmm ndax man xam naa ni gën xool sénégalais yi suñu borom bindaatu ko ci beneen xeet te sénégalais yi fa nekk ñi ngi may soutenir en masse. mi ngi may soutenir bu baax a baax te aw ma ci aw ma ci aw ma ci benn tiitaange wala benn dara dinañu dem suma ay mag suma ay xarit suma ay nawle artiste dinañ ma gunge ñu dem feetal ko tourner page boobu songu Bercy incha allah mooy maa ngi woowaat ñëpp waaw. mais lu feesoon ci dënd bi écotrip am na mais dóor nga ay loo xam ne xamee wuñ ko ci Sidy ndax boo ne lu sama yoon ci sama oto bi may dawal waxaat leneen am nga ñooy tontu. non mais yooyu yàgg na fi déggoon Viviane ah yooyu yàgg na déggoon Viviane li mu waxoon bokk ñu classe bokk ñu sa du ma sama may tànga sa xol bi def tamit waaw yooyu yooyu am na fi kon donc écotir sama bos ngeen gis la yooyu yàgg na new ci quoi <laughs> bàyyi yooyu